waa gars yi di leen wax yaa salaam yaa salaam yaa salaam di leen bëggee yéen ñëpp te di leen jox seen wàccuwaay di wax moo contre moo rek wax bi nga xam ne ni day faj jàngoroy wax ñu yaatal ku si mën partager rek mu partager ko xam ne si xeex bi la bokk maximum de partage gars yi na gën a yaatu rek ñu nekk si li ñu nekkoon rek Hamni, xexuñu ben benn d'intérêt comme lu ma koy waxee saa su rek objectif yi bokul ak ni ñuy xeexee di wax rek nak on a vécu dans ce combat on a beaucoup d'expérience te ci tay spécial <laughs> dina ñëw ci sama deuxième partie spécial rétro la sama deuxième partie il defal gars tout tuuti jaar-jaaru yenn activistes ak tey fi ñu mais comme ni nga ko ce sama titre j'appelle un certain la tête, au bar Nous ñëw wuy l'homme sans limite parce que waxoon dit, leen j'ai aucun limite pour mon pays pour mon pays pas pour Macky pas pour Macky Sall pas pour Ousmane Sonko

mu analyser situation yi ba léegi dafa neutre mais dafa wax jëf yu ñaaw yi Kaliphone def Kaliphone jëfaru Kaliphone jëfaru dafa jëfaru démb dafa jóge wal fajiri rek ñëw jëfaru nee naa ko nag cuuraayu dëmm bi kenn taalalu kenn kenn taalaguloo ko yow waaw parce que yow t'as des à rendre aux Sénégalais quand je quand je tente tant que t'es quelqu'un qui koo xam ne day assumer ay actam doo doon assumer say acte doo saaga madame Faye Sall saaga président de la République ba pare naan dañ la liggéeyoon waa Pastef ñoo la liggéeyoon pour nga saaga leen Bah Diakhaté yow bi affaire bi njëkkee am da nga am position extraordinaire ndax affaire bi mu amee

envoyé ko tikke yi ñoom ñëpp version Californie lañu dégg version Californie man ma ne leen du complot parce que ñoom ñëpp baa jaxate bi mu njëkkee génn dafa ne complot de Pastef kon moom moo ni tooñ te moo ni accusé waa Pastef léegi nag on appelle monsieur baa jaxate au bar au bar baa foog nga si l'homme sans limite au comme ni ma la koy waxee saa ne rek foog nga ñëw wuy si ñu ñëw gaay voilà ñun on toog parce que Californie deful dafaalewul am loo xam du ko def maintenant may ñaan rek activiste yëpp ñi nga xam ni peut-être publier nañ photo ndaw si nuy wala ay vidéo nuy ma leen di ñaan ngeen génne ko retiré ko seen seen publication yi parce que jigéen ne soyons pas comme eux bu ñu mel ni parce que nit ku nekk am nga looy jommal sa bopp nit ku nek aussi am na position bo xamni ni ko taxaw ci kanamu ci kanamu jigéen même bu nekkee ni japp nga ni ni ni liñ def ni ça a été fait un complot mal orchestré mal mal mal fait bien entendu bo xamanté ni maa ngi ciy voilà. vous l'avez entendu mom bi affaire bi xawé bi ka Kaliphone woowee dafa accuser waa Pastef ba nga xam daf ko jiin wa Pastef ni complot la bi Kaliphone génnaatee nde mbir bi du complot mom na am ngor ak courage génn ne du complot mais deful bobu de dañuy ñëwaat ci deuxième vidéo parce que bi c'est la première vidéo mom bi mu génnee wax maintenant may ñaan rek peut-être publier nañ photo ndaw si wala vidéo publication parce que jigéen ne soyons pas comme eux bu ñu parce que nit ku nekk am nga looy jommal sa nit ku aussi am na position boo xam ni waroo ko taxaw ci kanamu ci kanamu jigéen même bu nekkee ni jàpp nga ni ñii

may nuyuwaale Babacar Touré boulot. l'éternel perdant dans les éternels dossiers de faux. Je saluerai le voleur réputé Ousmane Tunkara, dont l'acte est là devant tout le monde et qu'il tente bon an mal an bien entendu nous nous nous donc nous sommes. nous kenn ku nous nga sa nous sa la parce que tout simplement, vous avez déglot Babacar Touré Keoulo, même en introduisant le cas de Californe. Babacar Touré Keoulo, même pour introduire le cas de Californe Salon, nam ko waxé nam ko dougalé moy ki gëna contre Ousmane Sonko donc dougu ci dossier bi dëgg taxul dougu ci dossier bi wax dëgg taxul xam nga dëgg taxul dañoo duggoon ci dossier bi bi ki di aji caare ci xawma jaw xawma dougu ci dossier bi uniquement pour pour faire mal à Kaliphone mais kon ni ma la waxoon rek di ngeen jëm ba son di ngeen dépenser al bataay di ngeen jëm ba lot insha allah rabbi seen pexé du dem songu ko songu sang non bi yon mom ka songu mo sang ka songu californe mo sang parce que tout simplement ku songu ku bon ku songu kat ku songu fenkat ku songu kat ku songu partisan boo xamante ni sodomiseur la lay dama leen ñu laaj Kusong, kusong, kalifon da Californie am jabar France bu moko tay di ko wax am jabar senegal bàyyi ay jabaram dem andak ñaari xalé ki tay keneen ki suba ba jaxate soit raisonnable soit crédible ndax man quand je t'appelle ba le traître tu le sais man je le sais parce que tu m'as menti man tu m'as menti man tu m'as trahi c'est ça il fait motax man je ne te crois pas li ngay wax yeb ci Ousmane Sonko yeb Californie il a fait les mêmes choses mais parce que conflit d'intérêt c'est am Californie c'est Californie parce que PDG Dior mon ex nekk qui ginnaaw ku yëngu rek 10 millions auto xamula léegi sax montre bi tey takkoo parce que ta mort, takk montre man je te connais léegi yaa ngi sol sax ay chemise yu Mais a mais dama ne la wax dëgg te yàlla tax jëf dëgg te yàlla tax xalé bi bon na tay tay tay genn nga position ne tiaga fi yani ngi accusé xale bi au début waxoon loolu Bah Diakhaté daanaka góor jigéen nga kan moko songu di sànku Ousmane Sonko présente toutes les qualités d'un pervers narcissique de surcroît il présente tous les gis nga li ma mettre ci dossier bi moy ñom ñep ñëpp analyser muy ba Khalifa Mati ñom ñëpp do xolé ni ñi ni protéger dañuy jël Ousmane Sonko Ta Kaliphone néna len Ousmane Sonko yoonu Pastef rel dañu bëgg ngeen lan la len wax parce que mi ngi ñaaw de ñaaw na ba nopi te ñaaw ndax Gabriel kan, dina ñëw Gabriel parce que la maladie man nee je vais vous détruire parce que vous êtes des traîtres parce que dinaa si ñëw dossier boobu parce que dama ne la Bah Diakhaté sénégalais di leen xam yow yaay kan ak li tax ngay xeex te nga dindi chaîne YouTube bi un activiste républicain doo am chaîne YouTube yaa ngi en train de de te faire des sous yaa ni liggéey xaalis si xeex bi te man loolu bañ man man man man yooyu si li may la.

tu le sépares avec ses parents nga génn ak moom nga indi ko mu bin binam dagg silibam xotteeku nga dóor ko ba kanam gi neewi loolu mooy lan baa jaxate man ma ñëw sa kër baa jaxate man ma génn ak sa sœur nga bàyyi ñu ñu génn dem ma ne restaurant laa sa sœur jaxate may sa sœur kanam ki toj mu am ay ay bule yaram bi jaxasoo perturbé une fille de 20 ans ba yow nga am comportement bi nga yow am nga un bu nga yow yow am nga jabar la la waxone rek bayil jabaru jambour bayil jabaru Je ne live bi ko YouTube ndax man nek ni ñom ci signaler sama compte yu metti man ak parce que live na Facebook tebal na mais la ne wax rek qui déglu du fàtte kii wax mooy fàtte te man ak la ma leen waxoon rek man je roule pas avec les traîtres vous m'avez sollicité ngeen foog le way yaay yooyu si yéen laa far ne naa je suis avec personne je suis solidaire wax naa leen ko faraluma kenn sama Sénégal laa faral du élection jotee ku si nga am sa candidat mais le Sénégal du ma Ben benn escroc di ci lijjanti boppam sëy ak moom jege ko ci sëy ak moom mi ngi noonu boobu mooy première information bi mu ñëw leeral loo xam ne Kaliphone waxoon na ko ba nuppi Kaliphone waxoon na ko ba nuppi mooy lan mooy defut laalu laala jegewu sax fu ñuy laale Babacar nee deful laalewul deful sax fu ñuy laale Kaliphone génn xale bi indiwaat ko kanam gi toj neew bin binam dag ñene deful laalul mais ba viens au bar yani si xanam l'homme sans limite nee naa la bàyyi di waxee waxu intérêt conflit d'intérêt motax ngay limiter say wax deful laalewul jegewul sax fu ñuy laale el Khaliphone il n'a pas nié que daf ko dóor niewul ni daf ko dóor sa marfos fausse marabu

manque de maturité. Il n'y a pas Mais, gars, Califan, Je me pose des questions à moi-même. Quel intérêt là la première copine. Je suis allé à 30 000. je suis allé à restaurant Nous parlons de 30 000. Avec ma gentillesse, je te le donne. Je suis eh, invité à faire une nouvelle Je vais invité à faire Je vais invité mais elle va être d'accord. Elle a accepté l'invitation de Californie. Bon, qu'elle accepté, elle ne pensait pas parce que amna lu mu gis ci xalé bi néna len xalé bi photo yu def c'est à son âge l'âge de puberté man amna amna fi moromam Les sax mu jaay ma jank un âge la ñom dañoo tombel réseaux sociaux youtube tiktok ñun nos femmes lan lañu tombel tam Erosali élopati Wure suñu mais dañoo La génération bo xamné génération Magdo la de ñun tangana lañu bah de jaxata ñun tangana xawma de te rappelles ñun bi de <coughs> ñun ak gel yi de kër lañ daan def balu kër ñun jet lañ daan jënd défar ay beñe dugub wala jus de bissap organiser bal la kër gi mais légui xalé discothèque la dem ak resto affaire yi ñoo tax la bah, Quoi xoolaatal bah. T'as T'as dit l'agneau si Gabriel contre Kane après avoir présenté Californie Sall comme un défenseur du président Macky a lancé l'acte d'accusation. Lâche. Contre toi. Lâche. Contre toi. Pas tout simplement. Qui ne connaît pas Babacar Toué Lui qui avait dit que Pape Moudou Sek est mort à 23h30. Qui connaît l'affaire c'est pas Babacar Keoulou l'affaire c'est caliphone bailen daga santé bi ba daga santé <laughs> l'affaire c'est pas Babacar Keoulou ni ni Ousmane Toukara. l'affaire c'est Il sale, faut pas détourner ni ni. si ñi nga xam ni défendre femme Bah, ba déglul bii ma tu accuses les gens de menteur yow ñu ñëw fii gis nañu ko euh, gaañu gaañu yee kuuyeg yooyu lu jekkul ci image jigéen wala ci image góor boo xam ne euh, dal na jigéen benn ñaareel ba mooy euh, dafa am xam naa dina ci tontu léegi Californie bi waaye mujj ñu am dañu continuer enquête ba pare ca nañu gis ne que teg ah, Non, attends, non, attends. dama bëgg ñu dégloonte bu baax parce que ce genre de mec là. pour qui je n'ai aucun respect. ni ñoo tax vous fu à mes problème du yuuxu. mais toi tu te prends pour qui pour juger quelqu'un au nom de Yalanen et on n'est pas là pour parler de Yalanen et correct, bi c'est pas ça le sujet c'est le sujet. Qu'est-ce que? tu lay wax alors. Tu jëlee ñu ne yàlla nee na lan la yalla wax nga bàyyi sa ñaari jabar yalla si ñom yeen seen yalla bi yeen senegal bi ngeen am parce que goori yi vous êtes que des menteurs li ngeen ñu fenal yalla bés bu len yalla jappé nan la fofu duñ ñi indi yalla ay xalé bi day jaayu amul jëkkeur mu na génn day jaayu pour am jëkkeur pour jaar Kaliphone ñaari jabar la bay. fofu lan la si yalla wax ñu suur ko ko di ko dóor ay xeer ba mu dee kon seen yàlla boobu dafa ray Kaliphone dafa ray kalifon moo tax du may gis ngeen ñi xale bi si sa façon de s'habiller seen c'est normal fu mu leen rombee ngeen gestu doomu xaraam yi saa yu leen xale yi rombee ngeen gestu yéen ñëpp di wax solin bii nos valeurs yére yére yi ñi koy jaay ay arabisants ñuy jaay cité ngos yeeg slip yek string yi yéen commerçant yi la yeen doomu imaam ñeppay ñëpp koy sol jógee di fanal xalé ñu nañ ñëw rek dinaa ñëw ci jëfuru kalifan bi dans ce pays et que personne ne dit rien. il y a une chose qui est passée inaperçue dans tout le pays. Mm -hmm. Parce qu'il y a tellement de mecs qui sont là, tellement petits, tellement parvenus à se cogner, que c'est passé inaperçu une femme a été tuée par son mari. Mhm. Personne n'en a parlé. Quel waxu quoi mais non c'est on parlé hein. attends c'est passé inaperçu. c'est quasi passé inaperçu. Donc lui là, pour se donner une image, il va ramener Adissar. Le sujet d'aujourd'hui, ce n'est pas Adissar. Mm On est passé de Adissar, c'est aujourd'hui, c'est Adichare. Voilà. C'est

bokkul ak Mati trois pom Mati gis nañ sa discours yow Kaliphone démb ci la def live mais la fi mo YouTube ku ko bëgg sétane nga YouTube François Ellen dafa ciof yow ba Diakhaté da nga ubbi sa bajo sa bajo sa bajo golo bi nga yor ubbi sa lamine bu reuy bi di jaay l'espère mais na la ñun on a on a vécu dans sa combat fiñu jaar do fa do to wax te te dama si ñew yow ak yow ak mati dama si ñew mais avant tout nañu ñew si jëfuru saawaay si si jëfuru saawaay bi ñu déglu ko Sénégal xam nga kuy Gabriel Kam, duma la il a enregistré tous les filles Mati Trois Pommes Kaliphone da leen enregistré yow François Hélène biñ leen ñu jox xaalis bi première bi nga njëkk encaissé ku si nekk un huit bi nga jëkk encaissé ak Bah Diakhaté Kaliphone da leen xale bii nag Gabrielle Kane mii muy menacé amul si moom gat Gabrielle Kane Gabrielle Kane amul si yow gat mun naan ay yow Adji Sarr da nga xeex affaire jigéen la il faut ngeen laalante mënul nekk sa kër te dooleen laalante parce que fi ngeen yaroo bokkul moom dafa fekk kër ya xale si biir këram vingt ans moroomu doomam mu yóbbu ko <coughs> bëggoon ko tëddee mu moy amul si yow gat noonu la defoon Fatoumata Dansokho noonu lay def gel yi te dinaa si ñëw parce que yow am naa vidéo spéciale ñi nga teg dil yëpp maa nekk vidéo bi koo koy doon bonus bi Californie sénégalais dinañ xam yow yaay kan Adji Sarr mu ngi xeex. léegi yaa ngi koy soog a wax conflit d'intérêt. moo tax nga toog ci plateau bi Gabriel Kane naan da ngay attaqué boobu naan kaan da ngeen di toroxal jigéen da ngeen di jigéen semaine passée xeexu Adji Sarr amul un mois amul deux semaines amul trois semaines. waaw loolu c'est normal xeex entre filles c'est normal loolu moom Kali waxoo ñu ko woon léegi ñun loo ñu koy waxe na mu xawee lu tax génnoo wax ko.

moo mati do wax de mati trois pommes yow moom Californie teund na la ba pare do wax mu ni Dakar sa maam doo wax François do wax ba jaxate do wax ki nak mom gor la mané mané no duma ko parce que mom day jaay mom dafa am fil daful dara problème je t'ai appelé pour avoir trop j'ai appelé Mati pour avoir son soutien j'ai appelé Badiakate pour qu'il m'apporte son soutien parce que le problème bi dans da nga dem yow ak saawaay li Tunkara di wax yow wax peu de dimbali leen ma rek ngeen partagé ngeen may ay kër yu bëri partagé leen live bi lii ñëw moo ni ñëw partagé leen live bi parce que ñoo ni si ñoo parce que rastulaay partagé leen live bi rek Tu voulais elle témoigne à ta faveur. Elle n'a rien dit. Que ko ko sen Senker, elle était très belle, sanctielle. Khalabi, de Fajel Tao, mou sanctielle. yow Yao, mu ñëb ci keram, nga kanam karamgi, yak bani, bët yaram bi def ko ay bleu nga ne Gabrielle Kane waru ko wax Kaliphone parce que apporter na le son soutien le meilleur soutien bi nga am ci réseaux sociaux bi Gabriel kan mo lo ko apporté sois logique en toi-même mais yow ni la waroon waxé, fi la waroon waxé, na déclaration bima la woyé da nga ma wax certificat médical ngay xaar elle a raison yow do tax li Gabriel kan xex yépp nga dem djégé ko parce que un malade yow y un malade t'es un pervers yow gel yi nga def bari na sëy yi nga tas bari na te da ngeen. nga toog ak yaay xale bu jigéen te da ma ne woon doo si wax doo si dem ba nga Gabrielle du ñëwee dafay dem taxaw ci wetam elle défend les féminines da nga koy respecté loolu da nga koy nangul doo meree nit si yëfam da ngay doon hypocrite te nit doo ko meree si yëfam durant seize millions de sénégalais muy dal si kaw si nekk yow nga di yow nga fóotee mu wax la ko du ñëwee. day rangé aussi yaayu xalé bi ci victime bi lay wu ak c'est très normal nga gis ko dika téléphone gis pour menacer vous menacez tous parce que man j'ai eu votre menace man menace ma ma ay nit man lama len rek man man sen waji day ay nak yu ñu man sama man dama war a rey nit comme Barthélemy Dias man dama war a rey te xam naa ne yow moomu nee nga di nga yónni ay nit man sa yaay dama koy taal barki rasulilaay bés bu ma rombee nit bu ma moy nag ki nga ñu yónni maa ni ñaan ci jëmm yàlla ak yonent bi yàlla na ma faat man loolu laay ñaan yàlla yàlla na ma rey parce que du ma reyu du ma reyu képp ku nekk si réseau bi barki rasulilaay te man jëf naa man li ma wax josim yéen yéen activiste yi xam ngeen gis ngeen samay acte bi leen waxee damay dem fële dama fa dem dama wane sam bopp seen kër yi seen yaay yi barki rasulaa dinaa leen taal dem tëdd ci kaso bi j'ai ni chaud ni froid bu ma rombee ba ñu xosi ma man damay yow moomu dinaa taal sa yaay moom ak bëtam yu bon yooyu dañ ñëw man man du ma booy bu ñuy menacé juróom-ñaari maam laa fi am wax moom doonal ma ko tere ñëw nga gendarmerie nga toog ak yaay xale bu jigéen bi yaay xale bu jigéen day gis toog si suufu garab nga toog nga nekk ak moom pendant vingt minutes ak avocat di wax ma seetaan rek yaa ngi andi oto bu xonk quatre quatre mu dem Range Rover toog si ak sa chauffeur ma bàyyi la ba nga wax ak ñoom bay génn ma woo la téléphone ngay communiquer gis ngeen ngay communiquer nga pare communication ma woo la ne la pourtant bi ngay wax ak xale bu jigéen bi munoon nga ma nuyuwaale pour wax la gis naa la parce que boobu doon nëbbatu. nëbbatuwul yow yaa nëbbatu lu tax feeñu woo ko yow Kaliphone lu tax feeñu woo ko parce que parce que t'es pas un gis naa la nga dem ba si moom nga nuyu ko nuyu xale yaayu xale bu jigéen bi lu tax defoo ko. yëg nga waxoon nga ma doo fa dem doo fa wax Mati trois waxoon na la du si wax say duy wax sa côté lay waxee mais moo tax mayoo Mati mu posé question dafa def nii rek 40 minutes nga nekk ci laaj bi ratatatatat wax naa la dangaa bëri wax dangaa bëri wax te munoo wax chaque jour ma wax la ko mbaa jaxate moom sa tàpp la yéen xam naa ne moom yaa ngi koy juutal mo ya lolu mati moko mom buma la manalul tus nee na yàlla la Ya yaa mën Bah Diakhaté Kaliphone kaay wuy Bah Diakhaté au mbiru Adji Sarr beneen bi maa doon wax si mbiru ñoom Adji Sarr dégg nañu ñoom Adji Sarr tànqal nit ñi Sénégal Adji Sarr nit yoo xam ne tekkiwuñu dara ba mu njëkkee def point de presse avant mois de mars la woon déggeen ngeen ko fii moom nee na dafa ëmb mars avril mai juin juillet mois te balaa mars la xool loolu kon instant bi Adji Sarr ñu ngi xaar te un mois wala un mois une semaine nga accouché Nabil Soukair wala lu dul dëgg du yàgg seen fen yi ngeen manigancé ànd ak seen yenn politiciens yi pour loon Sénégalais yi ba am 15 personnes yu si ñàkk seen bakkan ñu bëri perte seen liggéey biir Sénégal seen i ñàkk fayda yi la ñu bëgg bu mu amati biir Sénégal. gars yi partagé leen live bi may ay kër ñoo koy saboté. tegal dil sa baay wala nga teg mais bul jël koo xamante ni peut-être benn nit la boo xam ne ay nit dañ ko yaakaar ngay bëgg ñëw di mbubboog ñoom naan da ngeen di koy teg dil seen dil bi mënul ànd parce que yàlla suñu borom nee naa leen xoola moo téye doomu aadama yi tey adduna bi yàllaa ko yor aji saar nag ñu xaar sa doom yàgg-yàgg fii ñu ngi si juillet août septembre bëgg ñoon ñu dégg ñoom sa yaay Françoise Hélène Gaye ñëw ngénte doom bi parce que ba nga koy wax xeex rek ci mois de euh, mars la amoon te bi nga koy wax xeexi amaguloon xeexi ba mu amé légui amna 5 mois bi ngay né da nga ëmb ñepp dégg nañ ko da nga né mëno da nga ëmb ñu ngi xaar nak bul fi avorté na doom bi génn bu bopp bi ndoog bopp El Hadj ñu xamné ci digënté bi hélas djouf time na la ci lu mu lay denc bop ba léegi sa baay mënul tek bëk aji sa hélas djouf mu ngi dëkk rek dila la sa ñak fayda la ñu ngi xaar doom bi mu ñëw bo amé bop hélas djouf dinañu xam boo amee bopp Mamadou dinañu xam. si diggante boobu gis ngeen nit bu tekkiwul dara bi nag di Françoise Hélène Gaye bëggoon tànqal sénégalais yi ñëw naan ay damay défendre Adji Sarr Françoise Hélène Gaye balaa ngay défendre Adji Sarr défendre sa bopp yow nit nga boo xam ne tekkiwoo dara démb ak tey ñëpp xam la si réseaux sociaux andiwoo fi lu am njëriñ saaga nga fi nekke woon ñoom Macky Sall saaga nga fi nekk woon ñoom Marème Faye Sall saaga nga fi nekkee woon képp wax nga saaga ko foofu lañ la xamee doo xaar ba tey nag yaakaar ne jékki-jékki ñëw dañuy fàtte démb sa démb mu ngi say archive ñu ngi fi gis nañu réseaux sociaux yi moom kenn seetaanatu la ngay mer di taxaw naan woy dañoo sabat sa page kenn sabatewul sa page sénégalais yi ñoo doyal si yow sa fen yi nga doon fen ñoo amatul. mu

Saliou Mbacke xoola yàlla lañ ñu doon wax ak yonent yi ak keneen ak keneen mais ay Moustapha si soi-disant sëriñ yi xoola seen bopp dañuy wane ñoom am nañ pouvoir du ñu gàtt du ñu dara maa ko wax man duma live di nëppatu xoola maa ko wax bu kenn naan ay dañoo saaga tarixa ay dañoo patati patata xoola du ñu tus parce que euh, dof bii bu xamoon benn charlatan. ñax sëriñ bi dem jox koy xaalis xoola dafay dem si charlatan bi en personne mais na wax charlatan bi kan la. Hmm. na wax charlatan bi kan la nu mu amee xam ba ne xaw ma palmarin la nekk booru mbuur war na xam charlatan bi nu mu tudd ak ban kër la nekk. bu ko defee mu ànd ak dem dem jàpp temps boobu dóor ba mu bëgg a dee ne lu tax nga faat diw ak diw ak diw mais waxu yooyu du ay waxu dëkk. waxu yàq der la waxu un rancunier la Moustapha sii c' est un rancunier. te loolu daf ko moom moom c' un fou. moom dof la. yàq xam leen ni koy moom est un fou. yàq bu ko gëm na xoolal. yàq sa problème la. yàq ñun gëmuñu ay Moustapha Sy. yàq amuñu xam-xam duñu dara. affaire du question jàng nga alxuraan. xoolal am nga xam-xam. waaw. te ñoom yàlla lañ ñu doon wax yonent yi ñoom maam Saliou Mbacke xola yàlla lañ ñu doon wax ak yonent yi ak keneen ak keneen mais ay mustapha si soi-disant sëriñ yi xola seen bopp dañuy wane ñoom am nañ pouvoir du ñu gàtt du ñu dara. maa ko wax man du ma live di nëbbatu xola maa ko wax ñu eggali sama gars yi si beneen live. man la Kalifon Kalifon Sall. maay def live si Facebook xam naa ne yaa ngi may seetaan dañ ma yónnee say audio yi ngay waxee waa jooju nekkoon ci groupe bi di la laaj say taat ba nga jëloon sax say affaire yónnee ko beneen bi nga ne dootu la dalati yónnee nañ ma sa audio yooyu yëpp ak ay affaire tontu ma fii waa ji lan moo tax mu laaj la loolu nga wax ma parce que waa ji waruñu ko bàyyee noonu mën naa wax nag ñu dal si kaw waa ji ñu dimbali la yow comme jigéen ka mais yow doo si feeñ. expliquer ma nan la demee comme ça ma tok si Facebook mu wax wala yo nga woote nga wax waa ji jëf yu ñaaw mu la def parce que waroko sutural suturaal ku bon la e eh, nodam kal avant may tok Facebook di woné sa photo di la nan def na la li te yow it yónnee nga say bagage bagage mu ngi ci man ok Wow, ça va c'est théâtre peur de tes parents moi je me reste Facebook je vais dire que Awadidoum Awadidoum je vais montrer tes tes vidéos moi je vais dire taw un, an an an hen dis moi comment c'est passé moi je vais décortiquer sans mettre ta voix explique moi ici en audio je vais pas mettre ta voix comme ça toi personne ne saura que c'est toi si tu fais pas ça moi je vais expliquer tes audios que j'ai et puis je vais montrer ta photo waaw yónnee ma yenn ojo kodaas mooy waa ji fu muy waxee ak yooyu ak yeneen audio rek yónnee ma ko ok. du gis nga sa audio yi am naa ko ak yeneen ak sa yeneen audio am naa ko boo dof dof lee nag ba ma teg ko Facebook yaa ko def boo waxee man fii nu mu demee nga nga woo ma téléphone ma expliqué la bu dee sax bëggoo bàyyi audio woo ma téléphone nga expliqué ma bu ko defee kenn du xam fa laa yem nag. avec des menaces Bah Diakhaté avec des menaces preuve à l'appui ne ñii la daan def pour encaisser yenn gel yi ñi mu ko def bëri na barke Rasulullah te dañ siy ñëw